moo waral xuloo bi moo tax lu dul dëgg du yàgg ñiy toog ci média di duul may na ma un million ay fen xam nga benn jour am na benn jour ku doon nekk ci aéroport ñaaxal ak ñoo la xaw ba kan ah, Las Vegas bi kon ay ëmb ay jënd costume teeloo <laughs> kon daal ay ay ëmb ak ñoom ngi ci biir ay jënd ko sim delloo ay waa yàqum biir ah Las Vegas bi kon neexoon na <laughs> whatever happen in Vegas stay in Vegas fararaw ay <laughs> ay biir ay yàqum biir yooyu yëpp xew na <laughs> léegi des na nag Tange jëw bi mu doon jëw Viviane ak Pape Cheikh Diallo ak Ketchup ak jabaru Pape Cheikh Diallo ak Pape juuf <laughs> des na ojo yooyu yow moom Babacar Diaspora yow lu la dal baax na doo comme yow doo génn ci taatu kuy dem lu la dal rek baax na <laughs> bi ka maire boobu doon seede affaire bijou bi te wóolu ko nag tange <laughs> boobu xanaa moom jotoo leen ci tamit wala ma xaaf in vegan stay in bagages yàq biir